bagini eh boba bagini non bandi ah iphone ay daal daal yu ñu war a raxas nga war bàyyi pause yow xoolal nit day maa dàqane tey. mais damay xelli ndox ñu tàmbali du loolu lañ ci ñëwoon. déedéet waaw waaw man xam nga def naa waaw léegi man sotti na fi ma war a raxas ma xam yow kan moo lay sotti yow da nga maa nopp trop. yow yaa fi daa ko soog daal tilimal daal ba pare ne doo ma sootaale. kan yow yow. ah contraire contraire nga waxee. yow yow dàll bi kan moo ko solo mbërki dem. ya ko solo. man maa solo. ma ne bu commentaire yow la. yow mbërki dem dara booy bi dàq fee. nga solo. sama ndox mi maroon teg ko fee di ko wàcc ko ma ko koy laaj sama ndox bu lee ko sotti yéen ya, ndox ni mu ni ma tàkk teg pour waaye sang ngeen sotti ko foo ko def. laaj ko Cheikh laaj ma ko Cheikh li nga xam daa am waxuma ko yow mi laa que ça soit la première la ngeen ma sama pan bu koy oui ma nga ba wax say wax nga ma ci génn lu leer la wax say wax nga ma ci génne ma ku ne nga ma ni mako soti ma tay Daniel sama nok da bu lek soti fa laa yem ak yéen uy ma lo xew la bay raxas lañ koy waaye jay wala la ha ne wo ci douze mois yi ci année bi dernier 31 décembre xanaa xamoo ko jamono ji ñëpp xam nañ li ñuy waajal 24 beeg 31 bi la ñuy kii du ma wax ak moom kii amul may wax ak moom xam nga yow yow yow ku ñu yàpp nga ku ñu yàpp nga laa wax yow yow ñun ñun buñ dundee ah te xamuñu lan mooy 24 décembre ak 31 décembre yow ñun dañoo war a rey ñoom ah 24 24 décembre ñëpp xam nan le 23 ngay tëgg match le 23 nga koy tëgg le 24 mu leer nañ 31 décembre nag moom a sotti. a xam naa nga nelaw. tëdd nelaw. yow yow horaire bi dara fee ba. yow Papis man yow lay wax waxuma ko am fit ki nga xam attan naa génn mooy président de la république mu mel ni ku nàmpul nii. bu dee kan moo yow. kan moo nàmpul yow. xam nga yaa may tooñ nga. loolu loo a ci saraan loolu màggal judd yonente yonente yàlla Isaa la alayhi salaatu wa salaam. ngeen koy passé ñàkk fay de ay soirée ay baal yooyu yu xewi yooyu léegi ñëpp du tuxu nañ dem ca diina ji ci ci cant yeeg ci gàmmu yi ngeen koy passé ay soirée ñàkk fay de bëgg a dee au moins da ngeen respecté yàlla Isaa passé leen ci gàmmu yeeg ci cant yeeg ci daayira yi moo gën seen morom yëpp dellu nañ nekk si diina ji ngeen nekk ci affaire yi ñàkk fayda yi soog ngeen trop xamante xam faw ci bëgg a dee non man daal man daal non fay kii neexul yow kii neexul yow ma ne kii dafa jàng wala Cheikh yow jàngul man maa la tane kan kan jàngul ma man j'ai fait les bancs kan moo jàngul ma Cheikh loo jàng waaw ma ma aram dara kay fa àggali ko man yow ko aramtara kay ba xamoo. yow wax ma léegi lan nga xamul 31 décembre moom ko waxee rek non comme nii ñu koy defee rek indi booy yi xam nga def ba mbaax kii li sax dëgg mais buñ ko déglu kii bu ko dégloo dañuy daam parce que def di wër ci rajo yi ñu ko invité fu ne affaire yu yaasee daa muy def. duñ ko dégloo leer naa leer di ko yëngu duñ ko dund boo ko toppee duñ dund de. wala yow su fekkee da ngaa a dem cant nga sa ñaari sa ñaari booy. ah damay damaa maa bëgg mu leer rek. ma ne damaa xaw a manqué booy man xam nga lu ñëw ma encaisse. mooloo da ngaa jantalul ma wax la ko. yow sa façon de parler la lay xale yi bëggee. parce que j'ai fait les bancs te yow jàngoo kenn xamul looy dugg yow sa forme baaxul sa dara baaxul. kan la forme baaxul man mais mais les squelettes vivants tey boo yaag may napp de nii ma man su ma bàyyi mu sedd rek baal mu sedd Cheikh wax ji day jeex maa la non maa la laal tooñ nga ma ma defal la affaire boo defal affaire man yow Cheikh wax ji day jeex de wax ji day jeex la wax bandi e meta looloo tax bandi bilal